ku nekk xam na ne xaatimu rasul yaar moo ko itteeloon muy diggante alquran ak sunna ku nekk xam na ne jéegoom yépp it ci alquran ak sunna la tege woon wax na ne bi muy liggéeyali boroomam nasaraan bi di ko jële fii ci réew mi kenn wettiliwu ko ñi ko wéttali woon mooy rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa ashaabuhu fil bahri hiina adooru nee na ñi ko wéttali woon di ñi ko wéttali woon ci yoon woowu mooy alquranul karim ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak i sahaabaam nee na amul kenn ku ko yoraloon satalaam wala ab deram ba mu lëggéeyee di boromam ba ñëw andi lii mu andi kon liggéey boobu waxtu wu nekk warees naa xam ni ñuy def ba man cee jariñu bi ci jëkk mooy fexe ba yoon wi mu jaaroon ñu bañ koo wàcc te yoon woowu tegtale na ko joxoj na ko ndax bi ma ci indi rek ci ay tomb yu mu mas a def ci njaareem ngir di xamal mbooloo mi fi mu nekk daf leen dajale ne leen dama bëgg tey ngeen xam ne sama kër gi du peey daara la ne leen man mii duma buur ab sëriñ laa yéen ñii du ngeen di ay taalibe ngeen na ngeen xam ne jaamulu ma leen yàlla sama bopp laay jaamul yàlla na ngeen xam ne fee ñuy wax bis penc yaar yëf rekk a cay taxaden benn nga def lu la ci yóbbu mbaa nga wax lu la ci yóbbu daal di fopp loxoom teg ci dënnam ne man nag defuma lu ma ca yóbbu waxuma lu ma ca yóbbu kon wutiwuma fa dara ne leen na xam ne foofee it di bis penc bis bu ñu fa demee day suñu borom dana ma wutal barab boo xam ne fa laay nekk kon képp ku ma bëgg a gis boo jaaree ca yoon wa te wàccoo ko da nga ma fekk fa ma ne daal di ne leen yoon ma nag siraatal mustaqima la tudd képp ku ca jaar te wàccoo ko da nga ma fekk fa ma ne ne leen na ngeen xam ne it gudd naa aw fan te gàttuma ab tànk ne leen yéen wolof nag gudd fan li ngeen ko jàppee mooy ku dund téeméeri at mbaa lu mu ne leen loolu du gudd fan gudd fan mooy lu say at néew-néew na nga jëfal lislaam lu jullit ñi man a jariñoo te duñ ko fàtte nee na bu boobaa lu say at néew-néew gudd nga aw fan mu ne leen loolu moo tax ma ne leen gudd naa aw fan te gàttuma ab tànk wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis bind naa bàyyi. daal di ne kon nag ku jëf wàcce nga wàcce naa sa borom wàcce na ku jëfut nag wàcce naa sa borom wàcce na yaa ci des kon loolu li ñu war mooy nun ñu topp ci loolu di ko jàngale di ci yar doomi jullit ñi ndax loolu moo doonoon bëgg-bëggam te waxoon na ne bu ñu ma bokkale kenn wala mu naan ñu naan kii doon na ci man dara wala doon naa ci moom dara nee na kuñ may tudd rek di ma askanal ci moom na ngeen xool la mu baax lee képp laa bokk ak moom waaye la ca dib sabaan samaw yoon nekku ci daal di ne képp koo xam ne day yaa ngi may tuddoo moo xam ci wàllu deret la wala ci taalibe ngay tuddoo taalibe murit nee na nga mel melokaan woo xam ne képp ku la gis ngay jëf la ngay jëf mën na ma caa xeebe wala mu yabe ca sama yoon wi nee na loolee nga jëf du ma la ko jéggal ba yow man nee na it ngeen bëggee gis ñi may tuddoo naan aju nañ ci man ku aju ci man man maa war a xam ki aju ci man ndax nangu naa ko wala déet nee na ma bëgg leen a wan melokaan yoo xam ne nag ku ngeen séenati mu jaar ca yoon woowu xam leen ne nangu naa ne aju na ci man moo taxam mu ne yaa mutaalliquuna koonu muminin wa muslimina taatan wa muhsinin mu ne ñi aju ci man dañuy gëm yàlla bu wér nekk jullit piir buy topp yàlla ta di ko rafetal mu ne safiha man yatlubu jannatin bila ibadatin fa innahu lan yuqbala mu ne ki ma jàpp ne yaramam neexul ñu naan xelam dafa naqari nee na kooku mooy ki jàpp ne na mën naa dem àjjana te nanguta jaamu yàlla nee na kooku laa jàpp ne àndut ak xel mu neex mu ne nag ku fi gis àjjana joo xam ne ma ne safaa dem te doo jaar ci yoonu jaamu yàlla nee na fu ko fi waaye gis laggal wuti ko fa ndax soxal ma wala ko waaye fii ma nekk de amu fi taxaw fu mu am kon Serigne Touba foofu ci la nekkoon lii nag nga xam ne moom la Serigne Modou bi taxawal yoon woowu lañuy ñu gis mu jaar fa di ci liggéeyal Serigne bi di jéem jaar ci yoon woowu nga xam ne moom la Serigne bi xàlloon ngir man cee jariñ ndax damay wax ne kuñ ne mbokkum Serigne bi la la la war mooy nga jéem wut loo baax le loo mën a bokkeek Serigne bi. ndax nee ku ne la nga baax le rek la bokk ak yow kon la sa itte waru la nekk lu may wut lu baax loo mën a bokkee moom ku nekk ci mbaax wala nga koy sàkku nag jàpp na ne kenn gënu la ko jege moom ab sëriñ bi yaakaar naa siggil na dëkk bi siggil na tund bi ab dëkk boo ko defee daaray alxuraan bi ñuy jàng alxuraan def fa jàkk joo xam dañ fay jaamoo yàlla te loola lépp ay itte mënoon naa bañ a doon lool waaye loola lépp ci yow la ko nàmp nàmptale ci kër gi te loolu yàggul lu baax moom daa gaaw a jibbi rek yàggul ndax boobu yàggul yaakaar naa fekk nañ ko fii ba tàyyi ci kër gi doo ko jox itte lool sax waaye léegi yaakaar naa ku fi romb waxuma la nga jox ko itte di nga jox itte garab bi mu nekk kon jëfam jëpp ci sëñ bi lay seede wu yowmal xiyaam sëriñ bi mi ngi sant ñëpp mu ngi sant ñëpp tey ñaan yàlla defal leen tawféex di ñaan yàlla képp koo xamee ne teewal na ci bis bi muy seen jéggalu bàkkaar doon sa tawféex àddina ak alaaxira wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu